في كل سير وفي ظفر حماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر ñoo ngi koy seenu di la ñaan nga ñaanal ci réew mi jàmm ah, di la ñaan nga ñaanal ci nawet bi ñu dugg ci ak bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko ak alhamdulilahi rabil alamina ah, te mu barkeel ah, sëriñ bi monsieur le ministre Cheikh Tidiane Dieye mi nga xam ne moom lañ dénk wàllu ndox mi ci réew mi te président de la république Bassirou Diomaye fay ak premier ministre am Ousmane Sonko doyloo ko ci département boobu ba dénk ko ko muy département bu am solo ci réew mi di département boo xam ne fépp la ame jafe-jafe waaye fii ci dëkk bi ci la yitte ju mag am nañ ko ci ñaari weer yii nag nga xam ne moom la toog ñëw na bii mooy ñetteelu yoonam mu ñëw fi jamono bu nekk bu ñëwee dana ànd ak ñi nga xam ne say ndaw lañ muy benn ci man mi nga xam ne jiite naa conseil municipal bi ak lenn ci taalibe yi ànd ak gouverneur de la région préfet de Mbacké su préfet de Ndaam ak acteur développement yi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi di ci yëngu ak bonne volonté yi muy lenn ci association yi ak daayira yi ak xale yi nga xam ne dañoo nekk ci quartier yi te am Pastef ci liggéey bi daje di ci yëngatu ñëpp mu ànd ko ak ñoom ñu de la wax rek ci mbiram indonation bi muy ndoxu taw bi mu am barab yoo xam ne nii ci dëkk bi yu bari la yu ci amoon jafe-jafe waaye mu ne am ci ñeenti barab wala yu ràññiku yoo xam ne seeni jafe-jafe ñëpp ràññiku na lool ba ñëpp bàyyi leen ci xel ñeewanti leen ci muy mënees na cee tudd ndaamaatu ak ngelemu quartier ngelemu ak kër ñang ak ngiraaneen yàlla dogal na nag bi mu fi mujjee ak tey ñaar fukki fan ak ñeent la di 24 jours mu ñëw fi bi mu ñëwee bi ñu xoolee mu dajale acteurs yëpp nag ñu daje waxtaan kenn ku ci nekk mu fexe ba jokkaloo ak yow jokkale ñëpp ba ñëpp daje di waxtaan ñu mu xool ay solution yi nga xam ne yaakaar nañ ne suñ ko defee dana ñi am yaakaar ci ne lii dana wàññiku biñ ko defee nag lu lu jafe la woon ndax lenn li dafa bokk ci ñëpp daje takku ba di ko def ci dëkk bi ak ci service technique am yi waaye lenn li di loo xam ne dëkku nekkul ci dëkk bi ay matériel la yoo xam ne dañ ko war a wuti te te teewulu teewut jamono boobu ñu toll muy muy usine bi nga xam ne mooy liggéey tiwo yi yàlla dogal fi ñu ko ko waxee entreprise bi ne ko du ma ko mën a dana jafe lool ma àggale ko ndax tiwo yi ko war a def dafa amul ci biir loolu la daal di woo usine bi nga xam ne moo koy liggéey directeur bi waxtaan ak moom muy loo xam ne lu xaw a jafe la directeur bi na ko dama am contrainte yoo xam ne mooy tee ma man koo def ndax problème mu courant bi lay am te xam nga ku nekk xam ne ne jafe-jafe yi industrie ci courant mooy dafay am bilan de puissance bi de boo waree taal machine bi machine yëpp fonctionné en général sax poste courant bi lay yor du ko attan day coupé ba ci liggéeyu technique gu usine dafa am liggéey technique dangay taal partie bii mu produire nga fay taal partie bi mu sofe mu fay nga taal parti bii mu mu mu móole nga xam ne ñaare ci usine noonu lay fonctionner waaye nag fexe ba nga xam ne usine bi euh, dynamo yëpp dañuy tàkkandoo mu nekk benn seen kii produit jox kii kii produit jox kii kii produit jox kii lu jafe la ci industriel ci Sénégal ndax ci fu courant matul 100 pour cent loolu dana fa jafe ñu ñu yor machine yu ndaw yi sax dañuy def noonu loolu nag liggéeyu technique la boo xam ne ci compétence am ak xam-xamam xëy na moo ko indi ndax lu dëkkul nekkul ci dëkk bi bokkul ci département am bi nga xam ne ci la ne loolu ak xereñ ak ak yëg ak positif rek moo ko mën a déterminer ba mën a contact loolu ba muy dox bi mu ko defee waxtaan ak borom usine bi borom usine bi jooytu ko mu saisir Senelec Senelec fexe ba taxawu usine bi ba nga xam ne da ko def hors délestage ba usine bi mën a fonctionner fonctionnement boo xam ne c'est extraordinaire day seen yëpp day continuer usine bi ne di produire produit bi ñu soxla ba liñ ci soxla woon lépp mu mu fournir ko entreprise bi entreprise bi fournir indi ko door ma mën a exécuter deuxième conduite bi nga xam ne mooy jógee ngelamu jëm kër kàbb loolu nag du lu du lu yomb su defee effort bu toll noonu ak technique bi mu ko defee ak xereñ bi ak pëstéef bi donc dina daadu li wa wama sahid naa ilaa bi ma alim naa nit dafay seere li mu xam te yàlla tax ndax mënoon na rek li ko concerné ak li dépendre ci moom mu fexe ba lépp jag waaye nag loolu mooy li liy wane ne ku am yéene ci dëkk bi la mooy liy wane ne ku am yé ci li euh, pour réussir li ko président de la république dénk la waaye moo moo day wane ne population bi bàyyi na leen xel bàyyi na xel dëkk bi loolu rek laa ne woon faw ma seereel la ko dana xaw na gudd waaye nag bu fekkee ne danga ma teg ci seen kanam ma nekk sa diggante ak ñoom nga nekk ci biir ma ne ci bitti su ma gisee li ci biir war naa la koo leeral ba nga xam ko ba boo déggee mbir wala nga gis ko li ma sa wàjjuru waxoon kilifa dangay fexe ba mu xam na muy attee nag bu ci sa yoon ne te da ngeen maa teg ci bitti may ma di leen xool kon su ma gisee war naa laa wax soo ko see xam rek man wàcc naa loolu loolu la def foofu mu dem ci fi commune bi buntu commune bi ni meloon def na fa station boo xam ne raccordé nañ ko moom it lim waxoon rek mooy nañu fexe ba ndox mu dootu fa taxaw loolu it yàlla dogal na atteindre na objectif boobu ba monte nañ ko ba fi mu nekk nii bu tawee day pomper mu ñëw euh, ci station sel bi euh, dem loolu yooyu def na ko ci ndox ne dem na ngiraaneen ngiraaneen wax dëgg yàlla ndox ma wàññiku na jeex na ndax mat matoon na téeméeri kër génn na fa tey dañ bi ñu fay dem dañ ne fukki kër ak ñett ñoo fa des te bëgg nañ bala ñoo màggal seeni borom dellusi. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu. sëriñ bi maa ngi lay niyu niyu bu tedd di la ziyaara gannaaw ba ma demee seeti sëriñ bi ziyaar ko sàkku ci moom ñaan waaye ñaanal ko itam yàlla may ko gudd fan ak wér. amaat mbégte ñëw toog fii ngir waxtaan ak yow ndax yaakaar naa ay ñett wala ñeenti semaine ci ginnaaw toogoon naa fii ñu waxoon lu mel nii booba ñu ngi ci liggéey yi ñu wax la yéene yi ñu ci am ñëw rendre la compte wax la fi ñu tollu waaye sàkku ci yow ñaan euh, li ñu ci def ci diggante bi nag monsieur le maire wax na ko comme temps bi dafa xat du jaar du jar ma ma ñëwaat ci ndax loolu ma wax moo loolu mu wax mooy li nekk ak li ñu gis bi ñu ñëwee di vérifier li tax ñu man koo def itam mooy tax duma def lu dul rekk sant ak gërëm ak félicité ñi nga xam ni ñoo tax ñu am yooyu résultat ndax bi ma ñëwee rek dama nel ni état naam cim réew lépp lu soxal askan wi ci loxo état la nekk bàyyiwul fenn bàyyiwul lenn bàyyiwul kenn lépp état mooy responsable bi te bu xamee cëram amul lenn lu mu war a dummóoyu wala mu tànqam lu ko lu mu dégg rek war na koo jéem a saafara parce que mooy rôle waaye état lu mu xarañ-xarañ ay techniciens yi koy liggéeyal ak ay agents lu ñu mën-mën ak sax lu mu am am alal am na yoo xam ne du ko mën mukk te àndu ci ak nit ñi fa ñu nekk di fa dund ndax seen cër la ñoom ñoo ko moom ñoo ko xam moo tax ci sama démarche fu ma dem damay fexe dajale ñépp ñi nga xam ni ñooy bokk mbir ma ñëw tuubaa gi gannaaw ba ma sàkkoo ci kilifa yi ñu ñaanal ñu ndax loolu la ñuy féete ak di ñu waxal li ñu bëgg askan wi jàppalee ñu ko te bu ñu ko waxee askan wi dégg ko gannaaw ba ñu amee loolu dama seet monsieur le maire ne ko dëkk bi yow lañ ko teg ci sa loxo nga yoral sëriñ bi askan wi ma waxtaan ak monsieur le gouverneur ak préfet ak service administration yépp ne leen samay service technique mooy directeur yi nekk ci ministère bi surtout ñi nga xam ne ñooy liggéey fii mu di direction bi toppatoo mbiru inondation yi ak ONAS ak mbiru ndox mi di OFOR man leen ñoom nañu ànd ak ñii joxante loxo lépp lu ñuy def nañu ànd waxtaane ko bu ñu amee lu leen jaaxal bu kenn ni la ma foogoon nangam nañu tëju fenn nañu daw ci préfet mu jox leen saal wala dem mairie ñu toog waxtaane ko ni liikat mooy jafe-jafe bu ñu waxtaanee gis solution yàlla yombalal ñu ko dimbali ñu ba fu ñu dëgmal lépp jafe-jafe rek bi ñu waxtaanee ñu gis ni am nañ ci solution ba tey jii looloo ñu dimbali ba li ñu sumboon ci ay projet ak chantier lu ci bari yegg na am na ci yoo xam ni ne woon nañu bi ñu fi njëkkee ñëw dinañ ci def suñu kéemtalaay kàttan waaye yooyu xamoon nañ ni mënul yegg ci diggante fii ak nawet gi ci euh, màggal gi yooyu la ñu ni dana continuer waaye ma ne li woon lépp loo xam ni munta ñàkk fi léeg màggal gi te pexe man koo def doole man koo def xam-xam man koo def wala sax alal danañ ko def ba ma demee ministre de budget ma fëgg ci buntam ba ma demee seeti ministre infrastructure ministre forces armées ministre euh, intérieur bépp ministre ak énergie boo xam ni war nañoo jàppale ci liggéey bi ma woo leen ñoom ñu ñëw jàppale ñu mooy solidarité gouvernementale ba li ñu bëggoon ci projet yi lu ci bari ñu mën koo yeggale kon nag lu ñuy sant yàlla la ma lay tàllal loxo ngir ñu ña nga ñaanalal ñu ñii nga xam ni ñooy suñu njaboot ci wàllu liggéey sama directeur yëpp directeur u bu bees bi mooy seeni Dieng yàlla suturaale ko mission bi mu njëkk a def mooy bii mu def tey barki démb rek la toog yàlla def mu ñëw Touba ñu koy ñaanal moom itam yàlla defal ko ndam ci lii ko président de la république dénk may félicité itam OFOR bi nga xam ne moo yoru ndoxum naan def nañu seen kéemtalaay kàttan waaye nee naa leen duma leen félicité sax lu dul màggal gi romb wala ngeen régler problème mu ndox ba dootuñu ko wax parce que dama ni samay samay nit samay agent ak samay collaborateur jafe-jafey askan wi toll na foo xam ni fu ngeen defee rek ba sotti ba ñëpp sax tàccu xeeb leen ko mel ni defu leen dara ngeen jublu ci beneen problème ba bu ñu naw mukk li ñu def bu ñu ko ndamoo parce que defuñu dara ndax jafe-jafe yi du jeex donte lu bari jéem nañ ko ba yàlla defal ñu ci sutura nee naa leen nawet bi jeexul te réewum bay mbay la bay baykat lañu ñu ngi ñaan yàlla mu wàcceel ñu ndox mu doy mu baax mu mu dajale fépp ngir suñu gàncax gi yàlla jooju ñu ñaan ko ndox mi bañ a lor askan wi waaye mu defaral ñu suñu gàncax ngir mbay mi ba tax na lii di euh, camion yi ñuy distribuer ci dëkk bi itam muy citerne yi ñu dugal OFOR dugal na 135 citerne pour dimbalee ko nit ñi ne naa leen bépp camion bu ngeen gis ñu bind ci OFOR taf ko ci ku leen bëgg a jaay ndox mi bu leen ko fay ndax ndox moomu du ndox mu ñuy jaay ndox la mu état bi indi pour jox ko askan wi parce que ñu ngi may wax ni am na yu ñu fi daan dégg ma ni leen. loo xam ni rek ndox la citerne yooyu ñu def dañ ko ciy taf bind ci ofoor ni yooyu képp ku ko soxla boo ko laajee itam nañ la ko jox bu ko defee mu gratuit parce que ndox moomu kenn du ko jaay ak leneen lu mu ci mën a doon itam ñu ngi koy topp di ko seet di ko saytu pour que li ñu bëgg incha allah yegg ci màggal gi yàlla defal ñu ñu màggal ci jàmm euh, mbokk yi bu ñu ñëwee itam bokkoon na ci suñuy yitte ak li ñu xawoon indil jafe-jafe daaw mooy buntu mairie bi bi nga xamee ni taw na bisu màggal gi benn yoon bi kenn mënu cee jaar ñu tëj ko beneen bi rek doon jàll bu fa ay ay millions ngi nit di jàll dafay metti moo tax ren ñu fexe ba def fa station bi ñu ngi xaar nag bu tawee ñu xool nu muy comporté woo waaye ñu ngi ciy am yaakaar bu baax a baax waaye loolu yi sax yokk naa ci wax sama ministre sama sama collègue forces armées ne ko dante def nañu lu mel noonu na ma préparer le matériel boo xam ne daf koy bàyyi bu sorewul fenn dëkk bi bu yàlla defoon la ñu def doyul wala mu indiwaat jafe-jafe armée bi daal di ñëw au secours pour dimbali nit ñi ba jafe-jafe loraange bañ faa am donc daal pour wax la sëriñ bi nii lépp loo xam ne nii waroon nañ ko def muy ñu bàyyi ci xel def nañ ci suñu kéemtalaay kàttan ñuy sàkku ñaan pour yàlla yombal li des bu ñu yeggee ci màggal gi itam ñu def ko ci jàmm kon loolu laa waxoon ni euh, nañ la ko yeggee ci liggéey bi Euh, te li ci des itam ñu bëgg incha allah bu màggal gi jeexee ba nawet bi romb euh, loolu xam naa danaa ci jokkoog yow pour itam jox la ci information yi nga xam ni moom nga ci war a am itam ndax waxtaanoo nañ ci ci wàllu ndox mi ndoxum Tuubaa mi ba jële fi jafe-jafe ba nga xam ni kenn dootul wax waxi ndoxu problème mu ndox fi la juróom fukki at jëm kaw yéene ji ci sëriñ bi amoon léegi ñëw naa ba waxtaan ci ak moom rendre ko compte président de la république moo ma ni bu ma ñëwee naa wax ak moom ci lu mel noonu ci ni ko li mu waxoon ni moom la bëgg liggéey nañ ci yàlla defal ñu ci sutura ba temps bi loo doon def ci at daanaka ci juróom benn weer def nañ ko ci wàllu liggéey technique bi li ci des mooy ñu ñëw ànd ak yéen pour ñu lancer bu nawet bi jeexee projet yooyu incha allah ñu commencé ko xam na danañ ci jokkoo gën cee waxtaan ko defee yéen itam seen xalaat seen taxawaay seen xam-xam ak seen orientation ñu soxla ko ci lépp lu ñuy def rek ñu xam ni état bi ak communauté bi ñoom ñoo ko ànd mu di njëriñu askan wi di njëriñu Sénégal yëpp kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàggal seen taxawaay ci biir dëkk bi ci réew mi yàlla sàmb leen yokk leen kattan euh, ndax toogaay bi metti na itam liggéey bi mission bi ngeen yor euh, bu metti la waaye nag booy liggéeyal sa borom di liggéeyal sëriñ bi yaakaar naa ni euh, lu bare bu kii ci neneen ñi lay metti waaye yow daanaka doo ko yëg ndax mission bee toll noonu kon asalaamualeykum wa rahmatullah taalaa wa barakaatu ñu ngi leen di gërëm bu baax. Cheikh Ahmed Tidiane Dieye ministère yor wàllum ndox mi ak assainissement ñu ngi lay delloo ab nuyoo xam naa sax suñu bas laa waroon a wax mu jot li ma kàddu yi ndax coono yi waaye maam tuuti yu ma ci bëgg a leeralaale rek kon ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. ak mboolem délégation bi nga ànd bépp rawatina directeur général bu bees bu ONAS ak directeur général bu OFOR ak waa seen oo ak ñi ci des ñëpp ne ko sëñ bi leeral leeral dégg nañ bu baax a baax gis nañ ci sa yitte sa taxawaay ndax li ma doon wax sëñ Basiiru bi léegi rek fi ngeen toll xam ne lu ngeen def rek yéene la waaye jëf dëgg-dëgg mën a gut am ko xam ni nguur di doxe am na ci loo xam ne loo ci gis rek dangay nga xam ne lii mën a am waaye li ci ëpp solo rek mooy yittewoo gi te loolu gis nañ ko ndax biñ la biñ leen dénkee cër bi tuubaa ngeen njëkk a ñëw ngir xool si jafe-jafe yi ak xool nu ngeen ci may dafa solution loolu rek sëriñ bi booba ci yooyu jamono dafa tëju woon waaye yëgoon na ko xam na ko boobu ba nag itam ñëw nga fi ay yoon. loolu lépp fi diwaan yitte ak taxawaay kon loolu ci turu sëriñ bi gis na ko bu baax mi ngi lay ci sant di la gërëm ci taxawaay boobu nga xam ne def nga ko ci wàllu forage yi ndax forage yi moom bi ngay ñëw fekk nga yu bari paanoon ci ak yoo xam ne yàlla def na daaw laa ko toppatoon bañ defoon ko fi ci quartier yooyu ndax boobu mooy quartier yi gënoon metti ndax bi màggal gi jub si laa waxoon waa OFOR léegi nañ xool daaw jig sax la woon quartier yi gën a manqué ndox bi ñu ko nattee fekk at moom mënutoon mu daaw na lañ ko fi defaa bi ñu ko defee jut àgg ba jëriñoowuñ ko waaye fekkee forage yu bëree bëri pan ci dëkk bi ba nga dikkee nag nga def ci yitte ju kawe ba wax dëgg marista wax ne nëgë ni fi mu tollagu ni màggal Tuubaa mënta ñàkk ñàkkum ndox waaye fii mu toll nii moom wax dëgg jàpp naa ne bu fekkee fàtte naa kañ la gëj noonu màggal gu des semaine te dëkk bi ñàkk gu ndox lool am na ay quartier nag yu manqué fu ma ne jannatu foofu xam naa ne ñoom lañ gën a soxla dëgg-dëgg mooy réparer wan yi ndax wax nañ ne du problème forage ndax forage yi bari na fa ndax yaakaar naa ci li ma ko rek am na ci ñaari forage yu ma fa yóbbu yoo xam maa fa def ci at yi weesu kon forage la fa ne bari na waaye daf mel ne ña xam dëgg dëgg dëgg daf mel ne ci problème mu van van yu yàgg la ba tax ndox mi na war a jàll jàllatut fu mel ne xayri de mooy foraasu daar bi na moo indi jafe-jafe boobu itam yitte jigéen ci def ba bëggoon ko def balaa màggal gi waaye liggéey moom lu xaalis bi teew teew xaw day am waxtu wax na ci lañ ko waaye daal na ngeen xam ne ci li ci seen seen taxawaay moom def ngeen ci li ngeen li ngeen ma tollool yëg nañ ko bu baax kon cant ak ngërëm rek lañ leen ci ameel leen ñaanal yàlla ci barki Sëriñ Tuubaa suñu borom dimbali leen may leen kàttan ba mboolem naal ak sumb yi nga xam ne am ngeen ko rawatina ni nga ko waxee ni nga ko junjee mooy fexe ba dëkk bi tàggoog ñàkkum ndox ak assainissement wax naa la ko bu yàggul ne la ñaari jafe-jafe yi nga gën a am ci sa loxo la nekk mooy assainissement bi ak ndox mi kon loolu ca jàpp naa ne ndox mi bu réglé sax dana ci wàññi lu bari ndax li li ko gën a yokk mooy suuf si dafa mànde moo tax bu tawee rek bu gaaw a ci nii ñi. loolu nag xalaat yu bari jaar na fi mën naa ne 1998 la tam doon daayira bu ñuy wax Tawfiqul Hadi ñoo njëkkoon ànd ak Italie def benn itit bu yàgg boo sëñ Saliou fi ne boo président Abdou Diouf moo fi nekk ñu def itit mooy bi ngeen daan tuddee Touba booga Touba ca yooyu jamono bariwutoon sax ndax dëkk bi réyeegut nii booba it yëf yi ndax ca bu ma juumut ëpp toon fukki milliards ci yooyu jamono mën a yor Touba gépp waaye gis ngeen yëf ni muy soppi ko bi président Abdoulaye Wade di ñëwee itam am xalaat bu mu amoon tuddoon ko canal di Bawol canal di Bawol la ko tuddoon waaye yàlla defit mujjut sotte ci ci ci biir ak nekkam ba yàlla def uh, ci li nga xam ne man bi liggéey bi nekkee ci sama loxo léegi uh, ma ma teewe ko yaakaar naa gàtt gàtt ñaar fukki forage ak juróom def nañ ko ci sama kanam te taxul dëkk bi di gën a manqué dox kon jafe-jafe bi daa xóot te xam naa xam ngeen ci dara yàlla def bi 2019 accès ba màggalu 2019 ku ñuy wax Mansour Kama rahimahullahu ñëwoon ci Cheikh mu Mountakha jaaroon ci Serigne Moussa moo indi ko ci Serigne bi ne daa bëgg jàppale Serigne bi ci dëkk bi ci defal ko itit seet nu ñu mën a defaraate réseau bi. nu ñu mënee fexe ba xëcc fi ndox mu ñëw fekk na boobu sëriñ bi waxoon ne ne sama yitte jëpp ginnaaw bu université bi jàllee ndox mi la moom ci yàlla def ci yéeneem ba sëriñ bi bindaloon ko kayit sax ba jox ko ci ndigal moom ci boppam nag moo sàkk woon wax sëriñ bi ne ko bu sañoon président bi fi nekkoon di président Macky Sall yëg ko ba xam ne siñ bee ko jox ndigal ginnaaw bi nag ba mu àggee ci moom moom moo sàkk woon ci sëriñ bi ne ko nañ bàyyi état bi defal boppam itit jox ko ko loolu deux mille deux mille dix neuf deux mille vingt la décembre deux mille dix neuf loolu ñu yaakaar naa ba deux mille vingt trois ci lañ wax ne àgg na yàlla defit moom jotu ko defat jóge fi yéen itam bi ngeen dikkee ngeen waxal seen bopp président bi ñëwee moo wax ci làmmiñam ne yitteem jëpp ci Touba la ci jëkk mooy ndox ak assainissement kon nag le Saint-Blaise daa wax naan ku ne la jàkk bu ko ne geesu ndax xam nañ seen itteewu dëkk bi muy président Diomaye fay ak di premier bi Ousmane Sonko ak yow mi ngi ko dénkee xam nañ ci seen yitte ci biir loolu nag moo tax sëriñ bi da nim ci xamam ndax état bu ne ak programme état bu ne ak li tuddee politique ba mu gis ne mooy li gën ci réew mi moo tax sëriñ bi da ko bàyyiwaat ci seen loxo yéen ndax yéen yéenee xool li ngeen jàpp ne gën na ci réew mi gën ci dëkk bi rek moo xam laaj de guerre la moo xam tubaab bu gol ci doon daal sëñ moom jox la neen digal yéen ngeen xool la gën ci dëkk bi gën ci réew mi rek ngeen def ko loolu laay amoon lu ma ci bëggoon a leeral ci kàddu yi kon ji ñaan rek yàlla eh, ci barke Serigne Touba ñu àgg ci màggal jàmm te xam ne ne góor góor góoru ngeen ci li ngeen man waaye xam ne ne ndox moom faw mu ñàkk ndax bu forage pour dee tàkk te lu ëpp ña ñaar ñett ci li fi nekkoon ñëwaat fi sax faaw ndox mi day ndox mi de manqué kon dañuy jéem rek seen kem kem talaayu kattan li ci am solo rek mooy fexe ba projet yooyu ngeen xalaat ngir Touba tàggook ndox mi ñu feex ba def ci yitte mu gaaw rek loolu ci am solo wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar